yow gayndee la jur gu lawet te mos la fàttulu te tekki soxlaa ki jaxle kooko moo darale suñ Ousseynou Kane yow moo tax nga mel ni nga man kenn jàlloo ndax nuru woo ko ko may nga làmboo boole bari la ku bëgg suñ Ousseynou Kane jóg leen taxaw ñu màggal ko kan moo tax nga mel ni nga mel ndax nuru woo ko ko may jikko Serigne Saliou Mbacké nga làmb yow yaa mën a teeru gan te xam taraanga koy yow yi nag ngër nga am yaraanga suñ Ousseynou Kane jàmbaari lislaam nga yow dis gor muñ te yaatu lewet yow yaakaar yi ñëpp nga ndox doo gànt doo gënale ku bëgg suñ Ousseynou Kane def leen nii ñu màggal jàmbaari Serigne Saliou yow jàmbaari lislaam nga yow dis gor muñ te yaatu lewet ñàkkoo xorom ñaawuloo doo maas gan sëñ Ousseynou Kane mooy mbërum Serigne Saliou ma ne fu laa daan ngay tekk ndombaam fa pays diwaan Serigne Saliou Mbacké takkal na la médaille yi baatin Serigne Saliou takkal na la médaille yi baatin amul sabran jamilan kan jàlla yaa wakiiru yaa wóolu Serigne Saliou Mbacké maa la wóolu ana ku fi gën a bëgg Serigne Ousseynou Kane def leen nii ñu màggal borom kon man bis bisa man ci bokk man maa war di dala gan ah su ko defee rek na ñëpp teewlu waaw ah, Mbàkke baal ñi ngi jéggu na barke sëñ Tuubaa yow sëñ Basiiru mooy sa maam ndax lu dul doomu aadama rek yàlla dogal na muy tiraangee doomu aadama loolu la alquran naan wala xadi karram naa bani aadam ñu ngi sant sunu borom bam nu defee ñu doon ay jullit ndax lu dul jullit rekk jullit la gën fa yàlla laqad manna allaahu ala almuminin walillahi alizzatu wa li rasulihi wa lilmuminin walakin almunafiqina la yaalamuun ñu ngi sant sunu boroom bi mu nu boolee ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax lu dul xeetu yonent bi rekk xeetu yonent bee la gën kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas taamuruuna bilmaarufi wa tanxawna wa tanxawna anil munkar ñu ngi sant sunu boroom bi mu defee ñu bokk ci njabootuk Sëriñ Tuuba qulubu jumlati alladina aflahu liyatawajjahat wa rabbil muslihi yàlla nañ yàlla musal ci qulubu man lam yuhibbu ni ala wajalin wala yulaaquuna ma ràmma wala albaaba ñu ngi sant sunu borom bim nu defee ñu bokk ci taalibey sëriñ saalihu mbàkke linqaadatil ujur wal masaalihu bi tayyi wal bi wa inni saalihu te sax asaalihu alladi asaalih alladi yukammilul amal ci nooru daara yi ñu ngi sant mbooleem ñu teew ci jataay bi di ci jiital sëriñ sexu naa Mbàkke ñu fi nekkoon léegi moom sëriñ Jiili moom sëriñ Saalixu Mbàkke waaye di sant bu baax guddi gii moom ngeen di wax laylatul xadar laylatul xadar nag ñaari baat la al laylu wal guddi gii mu ngeen di wax laylatal mubaarak guddi gu barkeel gi nga xam ni alladi nasala fihi alquran ci la sunu borom subhanahu wa taala wàcce alquran laylatul xadar nag benn bis la boo xam ni dafa wecc junniy weer benn bis la boo xam ne boo dajee moom dafay wecc junniy weer ni yonent bi sallallahu alayhi wa gën a ci mbindéef yi yàlla dogal alquran gëne ko ci téere yi yàlla dogal bisu àjjuma gëne ko ci bis yi yàlla dogal weeru koor gëne ko ci weer yi kenn ku ne ak say xusuusiyaat noonu la yàlla jële laylatul qadar mooy guddi gi gën ci guddi yi sëriñ tubaa nag da ko tënk ci adat boo xam ni ñu bari sax ñuy jàpp ne sëñ bi ko bind muy làkkasun niyatun saxakun rayas googu xokkajun jukkatun saxakun mayes ni mu ko tënke noonu nga xam ne adat bi ci sunu laylatul xadar ñun génn fukki fan yi mujj yi dem ci yeneen fukki fan yi lu tax parce que ni ko ku tedd ki di jàppee du du du nekk lu dul guddi àjjuma saa yu ñu séentoo laylatul xadar saa yu ñu séentoo weer yi bis bi ñu um ci la xam kañ lañuy def laylatul xadar waaye laytu xadar du génn bisu bisu guddig ajjuma muy alxames noonu la ko sëriñ Mbàkke bu sa tënke woon du loo xam ne sax sëñ Tubaa moo ko bind ba fi may waxee yow nii ci yoonu murit am na ñoo xam ne tey du seen laylatul xadar pour wax la laylatul xadar du bis boo xam ni ñëpp dañ cee mànkoo ba fi may waxee nii am na ci gede gede bu sa boo demee tubaa am na fa ñoo xam ne tey du seen lëleetul xadar fukki fan yu mujj yi ci la def lëleetul xadar tey dañ ci amoon digal waaw waaw kay waa kër mbusoo ba mbusoo ba yi ay murit lañu am na ci ñoo xam ni sëriñ Touba joxoon na leen digal ñuy màggal lëleetul xadar ci fukki fan yu mujj yi am ñuy màggal lëleetul xadar ca adat bii ñu koy def te teewut ñoom ñëpp ñoo bokk gëm Serigne Touba kon loolu la muy tekk mooy laylatul xadar kenn mënu naa wax ni la ku dul Serigne Touba mi ko xam te waxuñu ko dañoo jox ndigal rek ñu di ko màggale ci anam bii moo tax ñii di ko def ci fukki fan yi mujj yi ñii di ko def ci lim bii nga xam ni dëppoo na ak xaddis yu bare bare di ko def waaye li am solo ba am solo mooy lan mooy laylatul xadar sunu borom fi ne nii junj ko misaalu ko da koo yaxal inna anzalnaahu fii laylatul qadar am na beneen micro bu am dara micro bu mën a wax am na fi beneen waxuma nga guppe bi de indil ma beneen micro boo xam ni day wax comme micro bi waaw inna anzalnaahu fi laylatil qadar wa ma adraka ma laylatul qadar laylatul qadar xayrun min alfi shahrin tanazzalu almalaikatu warruuhu fiha bi isni rabbihim min kulli amr salaamun salaamun salaamun hiya hatta matla alfajar moo tax yufraqu kullu amrin ñetti yoon la la la la la la sóoratul qadr yi tudd laylatul qadar benn inna anzalnaahu fii laylatul qadar muy benn waxaat wa ma wa ma adraka ma laylatul qadar muy ñaar mu firi boppam laylatul qadar mooy xayru min alfi sahri sëñ Amadou mu ngi dox hmm? yëkkatil ma inna anzalnaahu fii laylatul qadar bala ma ko firi inna anzalnaahu fii laylatul qadar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم baamu ko ñaari yoon sunu borom di yónnee malaaka yi ñuy wàcce yërmande ci jàmm ñuy wàcce yërmande ci jàmm ngir lan ngir màggu dayab dayab alquran rek xam nga alquran mi wàcc ci leetul xadri ba tax Serigne Touba fonkoon ko lool ba yegg ci ne sunu borom daf ma ko daf ma koo jagleel wax naa ne ko barki dem ni leen alquran day sama péete boo xam ne ku may jëw moo nga may jëwee moo tax bu guddeem ñëwee su ma sañoon kuy tuddoo taalibe ba soppe danga ko teewee dayob alxuraan guddi gi guddi gi rek firi na ko guddi gi firi ko alxuraan képp ngay gis sunu boroom annoncé ko ak ak wàccam ngir dayob màggam ngir day màggub alxuraan ku tedd ki daana ko wax sëriñ tubaa ci njaareem daana wax ni ki mu gën a ki mu gën a yërëm sëriñ tubaa nee na ki mu gën a yërëm ci nit ñi mooy ku judd ba màgg ba xamee ndeyjoor ak càmmoñ te jàngaluñ la alxuraan am na bis ci njaareem mu génn ci penc mi moom sëriñ tubaa xaal jàpp ko mu jël loxo bi daal di koy daal ci suuf moom Serigne Touba di wax di jël loxo bi di ko wëndeel naan naka la nit di yare doom ba mag te jàngale ko alquran naka la nit di yare doom ba jàngale ko alquran duggaat ci biir moom Serigne Touba. daana toog wéet nga dégg ku muy wax fekk nag ku muy waxtaanal alquran day toog ci suuf jox ko ba jox ko lal bu nooy moom mu tëdd ci kaw moom alquran. Serigne Touba toog ci suuf jël parfo misk parfum bi gën a set jamono yooyu sotti ko ci kaw kaamil bi muy gilli mu jàkkaar la moom naan ko yaa kitaabal karimi mbaa xam nga ni anta habibi mbaa xam nga ni wa xalili mbaa xam nga ni wa kunta tabibi muy ñetti mbir moom bu tedd ki yaa kitaabal karimi yow sang bu tedd bi bu doon ci nit la mooy yow téere bu tedd bi mbaa xam nga ne anta xalil yi soxla maa jàpp benn xarit bur jaw yow yaay sama xarit su ma bëggee wétandi ko yow laay wétandi ko te yaay sama soppe man dama laa bëgg te it yaay sama docteur su ma yëgee tawat sama yaram yaa may saafara moom Sëriñ Tuubaa moo tax mu tuddee ko huwa shifa min kulli daal moo tax mu tudde ko huwa shifa min kulli daal nee na alquran saafara na bépp jàngoro moom Sëriñ Tuubaa alxuraan saafara na bépp jàngoro dem na sax bay wax ni malakanil quraana tamlikan yadum sunu borom jox na ma alxuraan ma moom ko moom gu sax waxin la nag bu ne moom gu sax rek mooy day war yitte ji mu def ci alquran ak fi alquran fi waaw bur yàlla digile na ko ba noppi jàngale ko ba alquran indi ko nag sant Seex Saaliw cant gi ku rëy mënu ko te ne ku nay mënu ko te ku gorewul mënu ko nag sant Seex a cant weesu na wax bur yàlla mooy ki ko wax jëfal ba noppi te wax si moom Sëriñ Saaliw si yow la nii mate nit si yow la nii ame fit si yow la nii mujj yit billaahi seex o xalaat sëriñ saaliw ay mbir man suma geesoo xalaat sëriñ amana suma geesoo xalaat sëriñ sëriñ bi ne tey sagal ngeen ko lool ne tey ku dugg ci bas bi rek sa xol ci fànn yépp nag waaye nag ndam rek ba faw yéene ji rek la yàlla mottali ne ban duggee koor gi ba léegi képp koo xam ne rek aye nga ci rekk def nga jëf joo xam ne kawe na njortu ñépp muy waa Kayaar muy waa Kënsu ba ci ñun ñii tey ne dimanche bii di ñëw ne ci la tëj ndogu yi waa Riyaadu ñoo koy tëj bu dimanche rek ne bu Riyaadu ayee rek mu daal di jeex kon dimanche bii di ñëw. ci la ñuy ndogoo ci daara ji nan fi daan dogoyee nan fi ñaan ñaan baalante àq fas yéene séntu korite gi ne dimanche bi mujj nag waa riyaadu ñoo ñoom ñooy tëj événement bi ne yàlla na leen yàlla may ndam ñoom itam ban gis ci lu kawe seen jot ci kaw suuf bu ko amee xamuñu ko jànguñu ko fenn ñaan gi ca gën mooy nga summeeku waxuma summeeku yére de déedéet summeeku toroxlu bu naan la sëriñ bi summikul ni yàlla jaam képp la booy ñaan yàlla da ngay summeeku da ngay summeeku toroxlu wàcce sa bopp sa moroomum góor day ñimiwu laa jooyloo waaye yàlla dey dañuy raam ci buntam summeeku ci li lépp luy nuroo pouvoiru àddina summeeku ba mel ni néew bu tëdd ñu war koo jébbal boroomam subhanahu wa taala ngir toroxlu ci kanamam wan ko ni ko jaam képp lañ dañ ko yalwaan ñu ngi ci buntam nag taxaw ñun ñëpp ma fa séenee yalwaan ci sama mbattu lii yow yàlla su ma nee yow yàlla sëriñ Saliou Mbacke ci biir loolee mbattu laa yor rek damay yelwaan bépp baat boo xam ni boo ko waxee yàlla mu dégg la dinaa ko ko wax yelwaan ko ngir jaam ñii toog jàkkaarloog man ñenn ñi di ñàkk ñenn ñi di feebar ñenn ñi di way jaaxle ñenn ñi nekk ci xat-xat ñenn ñi nekk ci guddi gu bët seddagul ñenn ñi xamul fan la ñuy mujj ñenn ñi ñenn ñi ñenn jàngoro yépp benn docteur rek taxaw tey tey mooy borom bi tabaraka wa taala yàlla rek a existé tey fi de nii bismillahi arrahmani arrahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa yulad wa lam yakun kufaan ahad bismillahi qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufan ahad bismillahi arrahmani arrahim qul audu bi rabbil falaq min charri ma xalaq wa min charri gaadiqin ida waqab wa min charri nafasati fi luqad wa min charri xaasidin ida xasad بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسواس القناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس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 sëñ bi ne mu jox leen ab yóbbante ne sëriñ Fallou Mbacke nee na daa bëgg ma bokk ci ay xaritam ne donte tànn fu sëriñ Saliou laa sëñ Abdou Khadir Mbacke nee na ne ba keroog koor gi di jeex yéen ñi toog ci jataay bi ne du ngeen fi daje kuy dem sawara nee na sëñ Abdou moo ko wax léegi nee na billahi ne barke alquran sëñ Abdou Khadir Mbacke moo ma ko wax léegi ne bi sëñ Fallu waxee mu ne nee leen ba keroog koor gi di jeex man Abdou Khadir maa leen garanteel kenn du ci dem sawara